jërë ngeen jëf tiis wi ñu yeewoo démb yendaw ko moom la yéene yi xëye tey l'observateur nañu accident bu mitti moo am guddik samedi jàpp dimanche ñaari horaire ñoo mbëkkante ci yoonu Kaffrine yi fii tolloog dëkk bii di 6 kilo fanweeri doomi aadama ak juróom-ñeent l'observateur ne nañu ñoo ca faatu téeméeri nit jëlee ci ay gaañu-gaañu bi jëyee ji amee ñi njëkk ci fa accident ba amee doon xitali nit ñu naan leen première secours yi la ñu gis ba ñu yegsee ñoo ngi koy wax ci na ca senn ndaw suñu yóbbaale na ëmbub juróom-benn weer l'observateur mi ngi ñuy yeggeet jaaxle ak naqaru xol bu benn borom kër bu ñàkk ñaari doomam ci accident bi ci fanweeri nit ak juróom-ñeent yi faatu ci l'accident bi l'Obs nee nañu ba démb ñaar fukki nit ak lu teg lañ ci jote identifié gum li jur accident bi libération nee nañu moo di benn bus bu mag bu jóge woon Tamba moom la benn pneu kanam bi toj mu perte contrôle bi wàcc ci aw yoonam dem ci beneen sens bi daje fa ak beneen bus bu toll ne moom bu jóge woon Tamba li mu jur moo di fanweeri doomi aadama ak juróom-ñeent yu ca ñàkk seen bakkan téeméeri blessé benn yoo xam ne fukk yi ay blessé grave lañu woon ba am ñenn ci ñoom ñu mujjee réanimation bus bi mu xoñoo ba mokk Macky Sall mu tiim blessé bu tëdd ci lalu l'hôpitalam di ko masaw photo boobee moo nekk ci xët mu njëkk soleil national yéenekaay bi mi ngi ñuy wax dëj national bu ñetti fan bu njiit dogal mu war a tàmbali tey ji ci altine ji ngir ñi ñàkk seen bakkan ci accident bi mu di accident boobu soleil national nee nañu dëkk bii di wéli ngara kenn gënu ko cee li mu ci ñàkk bari vox populi nañu bi Sénégal de Sénégal ba léegi ak yoo xam ne jot identifier ba xàmmee leen xam ñooy ñan waaye jafe-jafe bi nag mooy nan la mën a def ba mën a identifier yeneen néew ya ca des journal Le Mandat bind ci xëtamu njëkk ne Sénégal mi ngi ci tiis ak naqar li ko waral mu di accident bi la Sénégal catastrophe nationale la ko tuddee deret ju bare ji tuuru bër ki démb ci talib Kaffrine bi Walf Quotidien jàpp na ne mooy bu ëpp bi naqar wi waa réew mi di dund source waa gis na ne amul fu mu yem drapeau yi réew mi bi am wane na ne jot na sëkk ci ñu taxaw jëlee fi li fi nekk te état bi dana jël ay matuwaayam jëli mesures ngir dakkal accident yi mu ne tey ji ci altine ji danañu def ab conseil interministériel ci njiital premier ministre ngir ñu xool yéen mesures la jël ci oto yeeg seen visite technique yi ak ci anam yi ñuy joxee nit ñi permis source waa mi ngi ñuy xibaar it koppar yu toll ci ñaari téeméeri millions yu état bi génnee ngir jàppale ko ñi faatule ak ñi jëlee gaañu gaañu ci accident mi bés bi le jour nee personnes faatu nañu ci réew mi ci accident ci kaw tali bi maa tey gi sëfoor yu bari nekk ci kaw tali bi réew mi quotidien jàpp na ne bokk nañu ci sooke accident yu bari sursoine ko ak pneu yu bon yi ndax transporteur yu bari jënd ay pneu oto yu bees ak ku leen rey lañu ñu yemale moo taxit it nee nañu téeméeri accident yu am ci réew mi lu jege ñeen fukk yi maanaam pour cent yi ay pneu oto yu toj moo koy waral